xam naa ni euh, ce qu'il faut d'abord c'est une bonne communication. est-ce que vous le faites. bon. Euh, est-ce que ordre bi tamit du tur kese est-ce que ordre bi du tur tur ordre bi dinay wax mais dégg-dégg bi xëj na moo des. kon waxin bi moo des. Ah, ordre bi ñu ngi wax de ñu ngi wax de. <laughs> <laughs> bu baax a baax ah kon ah. bu ñu déggul c'est-à-dire wax ji des na. Ah. Hmm. Hmm. oui peut-être que. Mhm. Euh, il y des améliorations à faire. Okay. dans la communication. Mm -hmm. de par euh, que ça soit plus régulière et plus intense. Mhm. loolu tamit mën na nekk. Mhm. mais. Hmm? dafay am aussi ay bâtiments yoo xamante ni. Euh, dañ leen di construire lu yàgg yàgg yàgg est-ce que bâtiment dafay am durée de vie. waaw. Hmm. waaw am na euh, durée de vie. Mhm. waaw loolu tamit qualité bi da ci hmm. waaw te bâtiment bu nga xamante ni euh, jaar na ci norme yëpp mooy ëpp durée de vie bâtiment boo xamante ni dañ ko <laughs> cam langal. ok <laughs> c'est sûr. ok euh, man euh, def naa ay par rapport am bâtiment par année deux mille vingt deux. am na mille quatre cent quarante six bâtiments yoo xamante ne euh, ci biir Ndakaaru. dañuy menacer tombe yooyu lan lañ ci war def dañ leen a war a réfectionner. wala dañ leen war a démolir. bon selon état de dégradation bi yi ñu war a démolir. dañ koy démolir parce que c'est des dangers dangers publics la. Mm. waaw bon yi nga xamante ni aussi war nañ ko mën a restaurer réfectionner. ba mu taxawaat loolu tamit mën na nekk mais est-ce que seeni boroom am nañu moyen boobu aussi est-ce que état bi am na politique boobu par exemple ñu recenser ni ah yi kat euh, c'est des bâtiments menaçant ruine très fort. Mm-hmm. ñu daaneel yooyu ñi nga xamante ni. ñoom seen batiment mën nañ ko mën nañ ko liggéeyaat ba nga xamante ne mën a taxaw léegi eh, te amuñu moyen. Mm-hmm. est-ce que état bi euh, def na benn politique boo xamante ni soit xaw ma subvention wala nu muy demee noo xam ni xëj na c'est des prêts. Mm-hmm. Euh, remboursables pour que ñooñu ñu aider leen pour que ñu ñu mën a euh, jotaat seen dëkkuwaay.